bonus bi sport lay nekk lan la tey wala yaa nga ca Sadio ba tey. Euh, wàcc ko ko waaw Sadio maa ngi moom ba nëgë ni wàcc ko boog waaw mais dinaa laal feneen ñetti fan nga yéeg ci Sadio. Hmm? laalaal feneen waaw. Euh, xam nga saajo de dinu suñu fierté. xam nga ñu ngi jëm ci li nga xamante ne moom mooy le ballon d'or africain. pour ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy la confirmation. Sadio que l'Europe le veuille ou non Sadio est le ballon d'or africain. Sadio est le ballon d'or pour le Sénégal. Mhm. quel que soit li nga xamante ne lañ bëgg def et te ñoom def nañ ko ba euh, Benzema jox ko le ballon d'or encore je reviens sur la sur la question Sadio Mané Benzema amul lu mu Sadio Mané sur le plan footballistique ci année bi ñu nekk. Mm. boo xoolee li Sadio gagné Benzema gagnewul xaaj Benzema sax mo ngi nii dañ ko éliminer ci walu li nga la la Ligue des Nations. Mm. Big Four bi sax euh, France bokku ci donc lolu euh, Sadio def benen compétition internationale rawatina moy euh, li di euh, la la la Coupe d'Afrique. Mm-hmm. muy le premier en tout cas le premier trophée mm-hmm. africain. Sadio gagné ko ba pare ci trophée ci compétition bobu mu nek meilleur joueur yéen ngeen ne noonu euh, nono yo li nga def non non non ah yow loolu taxuñu taxuñoo jóg loolu taxul nga am ballon d'or non Benzema yow yaangi Real de Madrid yow da nga defoon njombe ñu waat la équipe de France té yaangi ngi équipe de France mais grawul ñun euh suñu journal ñun ñoo koy ñooy joxe ballon d'or non grawul amul problème France gëj na am ballon d'or xara ñi taf tafé ko ñi changer règle yi ah. ñi indi bi ay yenen règle ñu nan non li motax légui pour nga nek ballon d'or ni ngay def yooyu mu changer ko waaye tay buñ doon xol la logique les deux premiers sénégalais la ñu doon Sadio Mané Edouard Mendy. ñëpp nangu nañ dëgg la beneen lu tax Edouard Mendy may ma tuuti bu la Edouard Mendy. Edouard Mendy Donnarumma mi nekk remplaçant au Paris Saint-Germain. ak Italie. Italie dafa dem Coupe d'Europe gagné Coupe d'Europe Donnarumma moo doon gardien. bi ñu demee pour def meilleur gardien kan lañ jël Donnarumma. alors que Donnarumma remplaçant la au Paris Saint-Germain. d'accord nañ. ça c'est sûr. analogie du sport. ana le fair play dans le football. mu ngi noonu. mais nee euh, neex bukki metti golo. Hmm. ah. dafa teel dafa teel bàyyi li ngay wax. sàmm wax ma beneen bi wala ma dem. mu ngi noonu ma dem.